waaw waaw moom day day day sunu soxna. ndeysaan waaw di di sunu sëriñ itam. jox ma sëñ as moom waaw. di sunu sëriñ itam. Mhm. ndax sunu soxna sëriñ sunu sëriñ la. ndeysaan di nit ku baax. Mhm. di nit koo xamante ni sànq rek. bi ñuy bi ñuy bi ñuy ñëw. cheikh mhm. bi mi ngi naan dëgg-dëgg jàpp ci moom sax mooy dëgg-dëgg jàpp ci man. ndax ndax ndax gërëm gi mu ko gërëm. ndeysaan doon sunu xarit doon xaritu ñëpp. ku solo seex ba te gisoo ko sax. soxna Penda boo gisee moom sa xel day gën a dal ndax bu seex bi génnee ci ginnaawam koy rafet ndax ay taxawaayam bu rafet ñun ñii moom bu bu dama naa ko sax yow boo boo toggee mm-hmm. doo sonn ci toggi rek ñun dinañ sonn ci xewulu ko ndax sa yéen sa yéen sa yéene <laughs> barke sëñ Touba billaahi wallaahi barke borom Touba day day day day am yéene sax pour pour dem marché man ma toog mun mun ma bàyyi suba loo bëgg loo bëgg a xéwloo. waaw as ma jël kii xam loolu ay yéene la ñu ngi koy ñaanal rek suñu borom gën a guddal fanam. léegi bisimilah. maam ñu ngi koy ñaanal rek suñu borom gën suñu bis bi tey bis bi tey day bisu day bisu loo xam lu ñu ci ñaan suñu def ko. waaw day sax ndax jotaayu sëriñ Baara la lu ñu ci ñaan rek. Mhm. suñu borom def ko ndax sëriñ Baara bi mu gënee àdduna mhm. ku tedd ki dañu woon li li li ngeen doon wut si ngan gi indaale na ko kon bu jotaay bii mm-hmm. day jote boo tax sëñ Mbàkke Madina am na lu mu yóbbante woon Mouhamed bi ci di topp jotaay bi nee na mi ngi sant bu baax a baax a baax a di sant Cheikh Badar di sant jotaay bi ni mu bindoo mm-hmm. xam ne boobu ba léegi mi ngi koy ànd ak yéen mm-hmm. looloo waral waajuram bi mu duggee rek daanaka matale na lépp sànq ba léegi téléphone bi Mouhamed bu génnee sëñ Mbàkke Madina moo koy woo waaw ndax gërëm gi mu gërëm Cheikh Badar ak topp gi bi topp jotaay bi moom it ñu koy ñaanal suñu bu gën a guddal aw fanam waaw waaw waaw loolu de bu ñu dikkee Cheikh Mohamed ko jàllale ndax ndigal la gën sax ndigal jëfe waaw mhm. waaw fi ci loolu lañuy ñuy borosewale rek téléphone bi fi mu ne nii kay soirkal la te xam ni te xam ni te xam ni lépp moom la ndax Serigne Mbacke Madina mhm. mu sëñ Abdou Khadim mu sëñ Baara mhm. bi mu ñu defalee cër bi ñu ànd liggéey bi ak moom soxna Penda mi génn léegi dafa bokk ci njëkk a jaayante donte donte dañ ne ab ab ab soxna moom borom këram mooy sëriñam mm-hmm. waaye nag bi bi cër bi ñëwee daa daa jaayante waat geneen jaayante mooy joxaat ñu boppam àdduna ak àllaaxira ànd ak ñun liggéey bi nam defoon Mbàkke Kajoor yi njëkk def mm-hmm. nga xam ne boobu jamono yooyu ñu ngi ci garage mm-hmm. ndax def naa yaakaar naa taarix mënul ñàkk ci nit koo xam ne suñu borom day dogal mu gane àdduna mhm. yàlla bind ci moom ay destin mhm. destin yooyu du ñàkk duñu mën a jaar si Ablaye mi yaakaar naa xam na ci daan ndax ba ñu mhm. xamante mën du lii amul woon boobu te lañ daan sol waaw suñu borom xerañal ñu ñu mën a defar oto lool daan ko defar cër bi mu ñëwee at mi ñu njëkk a dem Mbàkke Kajoor yaakaar naa at moom garastama fekk waaye dafa takk laxa saayam ànd ak sama banque bu ñuy wax soxna Njaay moom it ma boppam ñu ànd dem dem daan dañ daan màjjali takk seen digg yor këll di màjjal ba mbàkkat yi kajoor ñëw lu ñu am ñu def ko ay boisson wala ñu def ko lu ñu mën a am yóbbu ko mbàkk kajoor kon yaakaar na liggéey bu sotti la loolu <laughs> waaw barkeel barkeel na mhm. ñu leen di sant leen gërëm di sant di ci boros waale suñu di wax soxna Fatma ni mhm. man na ndey mhm. di sama waajur bu na ndey ku ne dëgg la ndax liggéey na sama ëttu baay lu war man ma a mel nii dëgg moom laa fi dese mu gudd ñu jox ma ko muy rakk soxna Penda moom tamit ñëw toog ci ginnaaw soxna Penda ànd ak moom liggéey bi di wax ni xurum boobu nag. ñu war a bàyyi xel ni. maanaam ñaari rakka yu fa nit julli. moo gën ñaari rakka yu nit julli Cees. kon bis boobu di àjjuma. nañ wàcc te xam ni àjjuma fa lañ koy jullee ji. ñu xam ne àjjuma jooju kon du yam ak àjjuma yi ñu doon julli. waaw ñu àndandoo ko nag. aller retour paas bi amul fay. ah waaw déedéet. foote yi taxaw at mu jot bañ ñuy door a seexal lañ ko tàmbuloon ba suñu jëm yàlla tey jii. kon nag booba lañ ko mënoon waxuma laa suñu jamono yàlla tey ji ndax suñ baar def na fi lépp mhm. suñ maam góor manqué wuñ lépp waaw lépp suñ baar defal na nga xam ni aller retour dañ koy dañ koy maye oto ji amul fay te loolu woon nañ ko njëlbeen suñ Cheikh Bada bi nag moo nar a àndal màggal de waaw buñ demee tamit lépp luñ fay xewloo ci wàllu berne dina fa nekk <laughs> ñu ànd koog yéen sant la ci suñ baara suñ borom ndax li ko suñu Ablaay waxee mhm. atum atum juddóom mhm. la ñuy màggal nii. Mm-hmm. at mi mu faatoo lañ daan màggal. Mm-hmm. waaw Cheikh Mouhamadou Hafiz màggal koy at. Mm-hmm. sëñ Abdou Aziz Baara ñëw màggal koy at. sëñ Sidi Muxtaar ñëw màggal ko ay at. sëñ Saali woo ko ba mu ñëw ni leen su ma sañoon. doomi sëñ Tuubaa yi ngeen leen di màggalal na ngeen ko def bisu juddu tamit ko def bisu faatu. loolu la waral bis bi. waaye benn fanu tabaski la woon ci altine. loolu la waral bis bi ñu wan ñu indi ko ci ak juddoom. kon nag bisu gane àdduna moom. bisu mbégte la. bisu mbégte la de waaw. bisu naqar bisu kenn du moom moom it sëñ Saliou. waaw kenn du moom kon ciy woo ñëpp. bàyyiwuma kenn laxasaay bi nag dañ ñëw ci laxasaay gi. gi sëñ maam bu weer bi waaw laxasaay gi. xam nga ñun dafa am lu ñu defal. ndeysaan. muy cërub seex wàcc na ci comme ni mu wàccee ci ñëpp. ndeysaan. sëñ sa sëñ sëñ Mbacke Madina boole ci. takkalaat ma ci ne garab boo gisee ma ñemee dañ maa déy. dëgg la sëñ Mbacke moo ma déy. ndax moo ne ma mbalka ma sëñ Tuubaa tànqale woon góor yàlla yi ñu naan mm-hmm. tànkaluma la ci dama la tàbbal waa ki ñu ak ki ñu tàbbal nag luy mm-hmm. différence bi waaw kuñ kuñ tàbbal moom boo ma ju sama nga caa lab mm-hmm. da ngay tooy fépp waaw <laughs> ca àdduma ba mu delsee ma ànd ak magam ñu dem siyaare si Sidi Moxtaar tàkku saanu màggal sëriñ bi ci jëmmi boppam moo ko fi ma sama seex waaw ndax kooku dañu ko sëñ Mbàkke Madina mu sëñ Abdou Khadim moo ko defal cërub seex mun ma na nga fexe ba bu ci gis sa bopp wallaahi wa taala mi ngi ci dëgg maa ngi ci neen tey ne ma da nga fexe bu ci gis sa bopp boo gisee woyof gi mhm. ak taalibe gi gënal ñu lépp mooy baatam boobu da nga fexe bu ci gis sa bopp mhm. te boo eggee na samp ab daayira mhm. donte da nga dem ñi ciy liggéeyal yàlla ndax des moo fi des ci ab liggéey bi sëñ Tuubaa ñu ñëw taxawal daayira Kanzul Muhtadina fi salaati ala xayril jëwri na ngi ne moom mooy jëwriñu xale yi moom tamit jaayante ak ñun mhm. jox ñu boppam ci liggéey bi tàmbalee mhm. jur doom tuddenu kon moom tamit wàcc na yàlla na ko sëñ Tuubaa gën a taxaw ba li bëgg a liggéeyal Cheikh Mamadou Lamine Bara moom ci ëtt bi kenn bañ ko cee ëppale dara amiin